xam ne daal moom la ñu nemmee ko mooy jege ñaale Macky Sall ji maanaam ñoo koy pousse ngir nag moo am ñetteelu candidature ci bopp réewum Sénégal yéen kaay gi nag nee na li nga xam ne moo ko waral bokk na ci jege ñaale Macky Sall seen intérêt moo tax beneen bi nag dañuy ragal maanaam nguur gi këpp ñeneen ñëw yore nguur gi ubbi li nga xam ne mooy kër yi loole la ñuy dawa ba tey ci biir journal bi di réew mi quotidien ci xalim ak Assane Sambo nee na li nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci réew mi maanaam njiitu réew yi daal leen di faral di jàppootaas maanaam di leen dugal ci giraawal yi ki musiba bu kaay gi

boo xam ne maanaam bi ñu koy atte andi nañu ko waaye nag nekk fii ci réew mi naan bu ma kenn amnistie loolee du waxu dara ndax nag ñi nga xam ne ñooy militants yi sonn nañu tay nañ damm nañu dee nañu ci Karim Wade tey lay ñëw suba lay ñëw ngoon lay ñëw te phrase dali xëdd na yéen kaay gi di réew xëy dañu xibaar naan ñoo Aminata Touré jamono ji maanaam sumb na ab guerre digganteem ak président Macky Sall journal bi nee na Aminata Touré nag ab proposition de loi la yóbbu assemblée nationale ngir nag njabootu président maanaam génn seen loxo ci de Touré Macky Sall ku njabootama ñoom la visé ci proposition de loi bi nga xam ne maanaam yóbbu na ko assemblée nationale yéen kaay gii da lay ne na proposition de loi la boo xam ne Aminata Touré nag dafa bëgg a jeexal maanaam ñi nga xam ne nag ñooy njabootu président gi nga xam ne ñooy faral di ngar dajo poste yi loole la Aminata Touré nag bëgg a jeexal ci réew ndax nag moom Aminata Touré daal li mu bëgg ci proposition de loi boobee képp koo xamante xam ne nag mbokkum président nga président bi duutoo nekk ministre waaye tamit képp koo xam ne mbokkom président nga sem gaa duutoo ko mën a nekk ci mi waaye ne képp koo xam ne mbokkom président nga directeur général duutoo ko mën a nekk ci mi waaye ne képp koo xam ne mbokkom président nga mën a la ambassadeur consul dootoo ko mën a nekk fii ci mi loolee nag la Aminata Touré bëgg ndax yéen kaay gi de nee na nag Aminata Touré maanaam nag ñàkk tabb ñàkk fal gi nga xam ne ñàkk jiitale Aminata Touré nag maanaam njabootuk Faye Sall Timbo gii la bëgg ñu génn seen loxo ci doxalinu réew mi yéen kay gi de l'Observateur nee na en tout cas li am ba des location bi ci réew mi cher na ba maara détaillé mën na lay gis nga location bi mën la yokk na lu toll ci pour cent lu jëm nag ci wàllum dund geeg njëg geeg loolee mën na lay gis nga kenn waxaale ko waaye concertation bi nga xam ne nag moom la ñu doon amale doon nañu nas nag ay pexe ngir xool nan la ñuy def ba solution am ci yéen kay gi de réew mi quotidien nee na nan la ñuy def ba solution am ci kër gii di poste mën na la gis nga poste yàqu na liggéeykat yi nga xam na ñoo nekk poste ñoom nag démb janoon nañu ak taskatu xabaar yi wax nañu seeni jafe-jafe waaye tamit wax nañu jafe-jafe yi nga xam ne kër gii di poste am na ko ndax nee nañu bëri na ay compte courant ay compte épargne yoo xam ne clients yi ñoo ngi koy tëj yéene kaay gi nee na problème mu xaalis mën la gis nga crise moo am ci poste de yéene kaay gii di wal fajri nee na lu toll ci ñeenti junni yu fekk juróomi téeméer ci emploi ñoo xamante ni ñoo ngi ci yoonu chômage mën na lay gis nga ñàkk seen liggéey ci poste yéene kaay gii di Rewmi Quotidien nee liggéey liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci ministère agriculture ak liggéeykat yi nga xam na ñoo nekk ci ministère pêche ak liggéeykat yi nga xam na ñoo nekk ci élevage ma na lay gis nga gis nga ñetti ministères yi mën na lay gis nga liggéeykat yi nga xam na ñoo fi nekk mer nañu ba maara day taali 48 heures grève ndax ñoom nee na nañu maanaam dañoo bëgg a supprimer li nga xam ne mooy seeni prime nee ma seeni indemnité yéeni kaay gii wal fajri nee na nag lu jëm ci wàllum rentrée universitaire bi mën na lay nga tàbbi na géej moo ko waral mooy bi nga xam ne ñooy liggéeyee ci université yi ñoom ñoo dem ci ab grève 48 heures ndax ñoom nee na nañu dañoo bëgg ñu yokk seeni salaire comme ni ñu ko defalee ñëpp yéene kay gii di libération xëy di ñu xibaar naan ñu imam Basiru Mbay mi nga xam xamante ni moom la ñu faat fan yi ñu génn ci piir ci gox bii di génn surnal bi nee na chef de village ba di taala jéey ak imam Mor Mbay ak lu toll ci fukk ak ñaar ñoo xam ne njort nañu ne seen loxo laale nañu si yóbbu nañ leen ca kasu bu Ceesa journal bii de L'As nee li ñu leen di toppee mooy association de malfaiteurs ma ne la eh, gis nga lëngoo di def ay ñaawteef assassinat violation de domicile yéen kaay gi de l'observateur xëy du ñu xibaar naan ñu ci diwaanu Diourbel usine agroalimentaire bi nga xam ne moo fi explosé woon ba lu toll si juróom ñaari nit ñàkk fa seen ba ma ne lay gis nga usine boobu patron ba ka ko moom audition nañ ko déglu nañ ko gendarmerie yéen kaay gi de la Réveil Quotidien nee na gis nga li nga xam ne moo doy waar ci mbir mi ma ne la usine agroalimentaire boobee juróom ñaar yi juróom benn yëpp ay journalier lañu la bis bi di trois mille francs rek lañ leen doon fay yéen kaay gi de Les Échos ñu xëy fekk fa Serigne Assane Seck mi nga xam ne mooy xalif général bu Thiénaba nee na ab xalif général du contre nguur nee na moom ma ngi ak Macky te nee na tamit bu fi Macky jógee beneen président bu fi ñëw mu ànd ak yow ndax moom Serigne Assane Seck xalif général bu Thiénaba dafa jàpp ne daal ab xalif général moom wërta contre nguura yéen kaay gi de Libération xëy ñu xibaar naa ñu Kër Massar Njombe am na fa ndax ca suuf autopont ba ma ne la dafa am benn jigéen boo xam ne nekk nekkoon àndul ak sagoom àndul daal maanaam ak xelama ñaari samba booy yoo xam ne ñoo ko fa daan fekk di ko tëddee saa su nekk maanaam saa su nekk daal ñu ñëw tëddee ko ba seen xol sedd ñu dem bu ëllëgee ñu ñëwaat waaye nag journal bi nee na ñaar ñooñu nga xamante ni ay woyu la ñu sëggoon ci xale bu jigéen boobee nga xamante ni àndul ak xelam ca Kër Massar ca suufu pont ba ñooñee gendarmerie teg na leen loxo yéene kaay gii di sunu làmb xëy dañu xibaar naan ñu waa combat Siteu ñoom ñaar ñii mën na la xeex bi kan la gën a arrangé Jibril Kanji mi nga xam ne